Ablaye Diaw ak El Hadj Diouf moo nañu invité tey ci plateau bi ñu wax ñu lan mooy ndar ak ñu ngi leen di gërëm li ngeen def nii rafet na torop tey bu ñuy waxtaanee ndar du ñu ko yemale rek ci li nga xam ne moom mooy jikko ndar-ndar euh, tey sama invité def naa émission ñëwoon démb mm-hmm. ñëwoon démb ak ñëwoon tey uh-huh. boo boole ñoom ñëpp ñoo nekkoon ci àddina euh, ki may dalal di xale bu am yar papam ak waajuram nekk ñoo xam ne xam nañu ndar yaayam di doomu ndar di doomu ndar mu yaroo ndar màggee ndar xamee ndar suufu ndar barke ba ci tànkam mu am lu kenn amul li mu am mooy le premier ndar ndar boo xam ne jóge nga ci championnat local jaar ci championnat boo xam ne yàggoo fa daanu Angleterre mooy alaaji asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa asalaamaaleykum ki nga xam ne ñu ma bëgg di ma safoo papa dama lay gërëm vraiment yow la wax ci man rek yow la nekk bu dee footballu Sénégal yaa ko avancé loo yaa avancé loo lépp loo xam ne ci bi ndax la maa ngi lay gërëm di la sant ndax yaa ma yaax bu ñu xamee El Hadj Diouf bu ñu xam ne dëgg Hadj Diouf lépp ndax la te yow danga ma jàppale yaa ngi fàttaliku bi nga daan teg pote meew ma koy jël nga naan xale bi yàgg na dugal bi yàgg na dugal bi yàgg na xam football nga naan xale bu tuuti bi muy def ci équipe bi ma yàgg ko def Euh, li muy wax ni li muy wax ni ah, li ci bari moom sax ci ci ci jamonoom bi ma koy gis xool tànk yi xam ne xale boo xam ne incha allah mën naa sa gil ndar li nga li nga def ci football li nga gis nga li nga def ci football li nga def ci football ñi nga xam ne ñooy say waajur coppati sax defoo ko ci da nga cee cof rek waaye coppati defoo ko ci parce que da nga xam sama sama ñoom papa samay waajur dox leen a xam <laughs> moo tax da nga ni ma élage Euh, li nga de li sa papa def ci football xaaj bi xaaja bi doo ko ci def ma ni ma la ciy gërëm ci loolu ndax euh, jàppale nga ma sutural nga ma su ma defee dara sax bitim réew nga ni ma woo ma jël sa téléphone woo ma ni ma hélas waxoo woon doxale nii wala woon defoon nii teg ma ci raay loolu mooy jikko ndar ndar déedéet alaaji xam nga man ndar ndar laa te ndar ndar dafa mën a sot li nga def nii boo ko boo ko tàmmalitee da ma ci yëngal te xam nga warumaa yëngu <laughs> waxoo yëngu mais ku ñu lal nga yëngu waaw loolu liñ la defal dafa am solo gis nga lii muy def nii ci football ni mu mel ci football noonu la amee ay ngeneen ku ci mel ni Alaaji Mansour Mbaye da ngeen koy dégg ñu naan Tiwaawan waaye ay maamam ñu ngi bàyyeekoo Ndar nekk koo xam ne buñ la Alaaji Mansour Mbaye sa xel day dem ci Tiwaawan ba nga yaakaar ne Tiwaawan 100 pour cent la waaye ay maamam ngi bàyyi ko Ndar ay maamam ñu ngi bàyyi ko Ndar loo wax léegi ñaari rakk yi waa Touba la gis nga. ku baax ci réew mi papa jaar nga ndax doguma la. sujet de sujet i deux fois ballon d'or africain vraiment waa ndax ñoo ma ci jàppale. suufu Ndar moo barkeel gis nga alaaji gis nga suufu ndar barkeel bi mu barkeel moo tax kilifa diine yu mag jaar fa am na ñoo xam ne sax histoire waxu leen suñu maam maam borom Touba yàlla na yàlla yokk leeram jaloore gi mu def ndar man fooy tege ba tey Serigne Babacar Sy rabial taala anhu la mu def ndar jàng na ndar nekk ndar ba tey boo demee dañ la koy wax nan na fii la doon jaar fii la doon jaar da ngay ñëw ñu ne mbedd bii la sëñ Babacar si doon jaar nga ñëw ñu la gouverneur fii la nekkoon ak maam borom Touba. bureau ba ca ndar gis nga ndar doomu ndar ci boppam boo ko xoolee ne ko jàkk xam ne ku am kersa la am sutura du ñu xuloo mbedd du ñu teesante dañuy nas puso yi ba defante seen jàmm te kenn du yëg léegi la rek léegi la léegi la. léegi la yow la wax ci ndax ñun duñ ko mën a weddi parce que ndax ñu baax lañ ñu yaxu lañ ñu goxe lañ tey hélas lépp loo xamante ni bii waa ndax ñu ma ci ñu ma ciy jàppale rek dama koy delloo ndax lépp lu ma am ndax la jëm te loo ci xamul loo ci xamul xëy na sax dakaar war a yeneen dëkk yi la soxna doon jafe waaye ndar buñ la musaan gis nga dugg ci kër kilifa yi ñoo lay woo ne la caaxaan xaju fi. benn yoon nga koy def du ñaar ñu may la soxna gis nga ndar-ndar ndar-ndar bu sëy ak ndar-ndar ñu am doom boo xam ne bete bete la ci ndar-ndar bàyyi ndar-ndar te xam nga euh, ndar lu ci histoire bi mooy jigéenu ndar danañ la sëyal ba fi sëy yem te doo leen dégg seen baat ci kaw amatul amatul néew ma awul ndar de mais loolu da ko dul gisati boo demee ndar da ko fa fekk nag am na. am na ndar de mais dama ne sa yëg borom sa borom kër ba mu jeex te déggoo coow amatul waaye am na ndar dama ne dama ne dama ne jógee tukki ba 4 heures du kër ndar ndar ne dama bëgg reer mu génn la boolu gan boolu gan boolu gan ñoo koy wax boolu waaw Dakar ñoo koy wax boolu dof waaye ndar duñ ko wax boolu dof da dem ndar quatre heures du matin nga nekk gan fëgg ñu defal la ndar cere gan boolu gan boolu gan ndar la fekk baax ndax la lépp ndax la fekk baax lépp ndax euh, la fekk ba pare lépp ndax ba pare li ma neex ci góoru ndar balaa muy génn alaaji dama lay wax lu leer de balaa ngay génn dañu lay xool sa soxna moo lay xool ne la maraakis yi ak mbaxane bi ñooy ànd ne la garambu bi ak sàmba sembe bi ñooy ànd moo lay defal parfum si sa poqotaan moo koy jekki-jekkal te du am xel ñaar mukk ca fa nga jëm ndar daal ndar daal booy xool civilisation tubaab yi nga xam ne dañ fa nekk loolu ci laa doon ñëw ci laa doon ñëw ci laa ci laa ñëw fa laa dëkk far far si ndar buletu ndar xooñu ndar ñeexu ndar macaadu ndar monsieur wu ndar te te te loo ci xamul xale yi gis nga alaaji gis nga boo demee ci ndar ndar mu defal la miss bi ci suuf la koy teg te du xajam lu kenn mësul gis ci jigéenu ndar xale bu am juróom-ñett sa yaay dafa miss ba ba bu rombee xari sax xari mere ko gis nga gis nga xale bi gën a tuut tànk juróom-ñetti at bu la toggalee ceebu jën nga yaakaar ne maamaa ko togg mën nañu fóot mën nañu paase bëri nañu sutura neex nañu deret duñu histoire te boo dàq ji ab sàcc du doon ndar ndar dàq ji sàcc jàpp ko ñu ne fu mu dëkk ndar amul am na benn procureur bu ñu naan sot dafa nekk ndar ñu affecté ko fa cinq ans mu ne waaw man damay dem ñu ne ko lu tax mu ne dëkk boo xam ne doo juger nit bañ na fii la dëkk ay doxandéem rek ñi ngay jàpp ay dañuy jóge dakaar ñi jugee yeneen mais doomu ndar moo moo tax ma ne doomu ndar gis nga doomu ndar te bu amee cofeel ci yow du la ko nëbb bu la meree du la ko wax jigéenu ndar moo lay gis xaadim du ay caaxante jigéenu ndar njagamaar moo lay gisal boppam ne la danga maa neex te du ko nëbb loolu mooy réunion dañu rëyul dañu rëyul ba pare nag kaay ma xamal la gis nga ndar ndar bu yàlla baaxal mu nga am xaalis doo ko ñaan mooy lay gis sa xam ne soxla nga mu woo la may la si sutura te kenn du ko yëg te bu la xasee ba jox kàddoom bu la joxee kàddoom nag sa sa bu la xasee ba jox kàddoom jeex na li may daanal nag ci ndar ndeysaan euh, gis nga sa papa amoon na xarit buñ naan Euh, ma wadd wadd dem si yàlla gi génn na àdduna ndar ndar lu mu loo waxtaan ak moom bu déggee allahu akbar bàyyi na ca dem na jóge muy chrétien bi muy musulman bi bu dee dimanche dañuy def église ba mu saf saf ju ñoom ñëpp danga jëg dañuy jàng alaaji mux siin siin benn nga xam ne ñu sant sin ñu jaru moytu nañu ca ndar boobu ñu sant siin dañ leen di bu ñu xase ku jàng ku jàng alxuraan si njaboot Muhsin nga ko jàng. papa dooguma la bu ma daan petit camp ba ba ñu noddu suñu kër dama koy bàyyi dama daan booy fubalatuma parce que noddu nañu dem dem. loolu la may nag sa tànk yi barkel gis nga suuf boo xam ne maam Alaaji Malick jàngu ga rëy na Serigne Babacar si jaar fa ñaan fa maam borom Touba nekk fa gouverneur suuf soosu day barkel lu fa waay def am barke. waaw liggéey la xale yi. biñ ma waxee ne dañuy dem ndar xale yi Kouthia Show yi ma ne leen dama leen di ñaan kër goo leen romb ndar ndar bu leen gis bu fekkee ne ñu ngi fa <laughs> dañu romb ndar nañu leen teeru ndax la leen image bi ñu mën a joxe ci ndar mooy ndar ndar dafay bëgg doomu ndar te bu dul doomu ndar day bëgg gan day teral gan da koy teral da koy loolu lañu xam amuñu leneen lu dul teral te la raté rek la doomu doomu ndax xam vraiment loolu man dama bëgg rek nga wax ma kañ ngeen ñëw ma texal leen euh, euh. parce que ci bëgg a dugal sama loxo waaw da nga ci bëgg a dugal sa loxo dama ci bëgg a loo ci def nag loo ci def nag ci sutura nga koy def ndax xam naa ko loo ci wax tamit na nga ko def ci sutura loolu lu ma la defal lu ma la defal rek amoo ko te te te te xam nga lu garaw alaaji Golbert Diagne mooy symbole Ndar mooy symbole ndar boo ne ndar rek gis nga Youssou Ndour bi mu ko woyee nga war a xam ne ne am na ful mu jàngal ci moom sa papa Golbert nga xam ne boo ñëwee ndar sa xel ci moom lay dem sa yaay Marie Madeleine ndem sa yàlla ji El Hadji Mansour tur boobu nga xam ne tot nañu Sénégal ak Reug Reug Bodian Reug Reug Bodian yaa ngi fàttaliku Marie jaral na ma ko pajom nga ne Marie jaral na ma ko pajom bay li ngay wax El Hadji Marie ko waaye li ngay wax yow tamit. waaye li ngay wax tey mari jaral na ko upaaja. yaa ngi may yëngal. mari jaral na ko upaaja. yaa ngi may yëngal. mari jaral na ko upaaja. yaa ngi may yëngal. mari jaral na ko upaaja. yaa ngi may yëngal. mari jaral na ko upaaja. yaa ngi may yëngal. mari jaral na ko upaaja. xale bi yaa ngi may yëngal. mari jaral na ko upaaja. yaa ngi may yëngal. mari jaral na ko upaaja. ala yaa ngi may yëngal. yëngal